ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si biti réew da ngeen di abonné gis nañ ko fi yàq alalu jàmbur gis nañ ko fi tooñ ci wàllu waxin wala sax jël ngànnaay nga xamante ni réew mi état bi moom moo am monopole bi moom rek moo ko war a utiliser gis nañ ñu ko yor di ci doxantoo. mbokk internet yi beneen fay ci ba tey ñu ngi ci actualité de la semaine. démb gis nañ la déclaration du ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome dans un contexte de manifestation de crise bi nga xamante ni euh, nemeeku nañ ko fii ci réew bi pour man aussi euh, ministre bi euh, daal su ma doon man franchement maa koy xelal doon na indi beneen déclaration bu dul bi dëgg yàlla pour man dëkk buy tàkk buy jax déclaration bi ngay génne day apaiser les tensions day dalal les esprits mënuñoo nekk ci xeex gars yi di taal di sonn di jandoog takk der di rayante di taal ay moor am ci juróom benn bakkan wadd inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna di jaale bu baax a baax njabootu ñu ci loru di ñaan ñi ci loru yàlla suñu borom xaaral àjjana pour man ci contexte boobu am na beneen façon de ton bu mu doon waxal loolu di yëkkati ay baatu terrorisme yow yaa ngi ci yàlla musal parce que terrorisme daal baaxul parce que am na woyu fëpp yu tëdd fële di ñaan yàlla Sénégal gi tàkk yàlla ci yàlla musal ñu profitoo ci lañ bëgg kon bu fi yëkkati baat yooyu terrorisme moom fi place wax dëgg fa yàlla pour moom waroon nga indi beneen discours bu discours nag boo xam ne day yokk ci wolof yokk ci xar mi karaw parce que dañ koy jàppale ne dañuy jàpp ne c'est c'est quelqu'un qui déclare la guerre te loolu baaxul maanaam da yokk ci xar mi karaw pour man mënoon na nekk discours boo xamante ni dina gën apaiser les tensions ci fii ñu toll nii pour man c'est un boo xamante ni. il est un peu ci sama jàngat bu bopp ci bopp ci contexte bi ñu nekk mais non pour aussi président moo waroon a wax wax moom président Ndeye Mbiré Diop loolu moom la ñëpp yàkkamti mu wax parce que moom la dénk réew mi il doit se prononcer là-dessus président li mu waroon a wax tax wax ak askan bi ba pare. fexe ba li nga xam xamante moom moo di li ñu bëri mettilu parce que nee naa sànq sama vidéo bee ñu bëri du bëri Ousmane Sonko mais da ko déclenché dañoo mer état bi ngir yàlla ak yonent bi nguur yàlla koy jox ko neex waxtu ko neexee lu koy jël yàlla suñu borom moo yore nguur waxtu ko neex la koy jël te bu koy jël da koy fuqate bu koy bu la koy jox nag dalay lay neexal mais bu koy jël da koy fuqate Sénégal yàgg na fi di nga ko fi nga ko fekk te di nga fi jóge bàyyi ko ngir yàlla ngir organiser des élections transparentes libres et transparentes démocratiques comme ci ci démocratie lañ la fale loolu moo ëpp solo mooy nga renoncer à vote troisième candidat bi waxuñ da nga koy def de mais nga leeral ci askan bi askan bi buñ ci amee leen leer rek jàmm am li nga yenu bëri buum buum yi mënul nekk vous êtes le président de la république mais également da nga war def li nga xam te moom moo di indi poste premier ministre mu man laa gérer yenn dossiers yi fast track bi nga doon wax dafa gën a mel ne tànk gileem maanaam dafa tende fa liggéey mbir yi dafa yeex mu am jàmm yeneen yi mooy eh, li nga xant moom la ñu bëgg tamit ndaw yi amuñu xëy ñii sonn nga identifier yan projet nga mën a teg pour que xale yi mën a am si lu ñu jàpp mën a yore seenu njaboot loolu mooy wax ji wante discours bi ñu dégg si sa premier si sa ministre de l' bi wax dëgg yàlla pour man du discours boo xam ne day apaiser les esprits amoo nombre avis loolu laa si mën a jàng